ñu ñëw tey nag bëgg wan nit ñi maanaam li nga xam ni def na ko fii ci tund wi jëmale ko ci suuf si loolu nag li ko indi ci laa njëkk a tàmbale mooy di turandoom sëñ suuf si borom daar yàlla yàlla dolli leeram moo àndoon nag moom ñu def tourné mu ñëw ba fii ci place bi fii mu ne ko sóora mu ne ko si mu ne ko place bii de sama suufa maa ko moom man la ko yàlla jot waaye delloowaat naa la ko jël ko nga ñëw liggéey fi tuur fi sa ñaq loo fi am si nga jël ko yaa njaboot sant Serigne Mansour si bu alaaji Abdou depuis ba mu fi ñëwee ba léegi ci tool yi nun la fi jiital man Mamadou Ba liggéeyal ci tool bi du ëpp fukki at ak nangam di wax si mbiru exploitation toolu Serigne Mansour si bu alaaji Abdou Aziz Dabakh muy sama wëllëre ñuy ànd bu yàgg depuis 1976 sa keer mu mas a bëgg a tool mais actuellement tool bi yëpp dans l' ensemble mat na 60 hectares donc première partie bi rek mat na 9 fi nu toll nii di waxtaan mat na 51 hectares mais 51 hectares superficie bu yaatu la neexu la emblavé d'un seul coup donc ñu doon démarrer progressivement. ñu jëkk si tool bu jëkk bi def fa ay manguier plante ko greffé ko ba mu ngi produire ñu ñëwaat ci deuxième exploitation bi muy 40 de démarré fi tamit ak des ci également toujours fële ñu ngi fa defoon ay manguier de variété quinte muy variété améliorée boo xam ne ne vraiment si primé nañ ko si exportation bi fii ñu def fi des limes des agrumes particulièrement ay lime Tahiti muy citron vert sans pépin duñu ko caaxaane ndigal duñu ko tardeel booba la daal di futtiku ñëw fii ci àll bi booba dara nekku du garab du tabax du néeg dara nekku mu ñëw ñu ànd mbaar la fi defoon mbaar mbaar jënd ay la def ko mbaar indi benn lal dugal ko ci biir amul ndox amul courant amul dara jiiti yeeg jaani yeeg wérit waaye comme ndigal jot na ko mu jógee ci turandoom rek mooy li ma waxoon di daa ci nekk ba bu fi dikkee si nga xam ne lan ma sama tànk tegu ci maa ngi jéem a góorgóorlu di ci di ci liggéey. on s'est rendu compte que ne investissement bi mu fi def parce que tamit toogul di xaar nit ñi dimbali ko daf fi def dooleem def fi plantation def fi ay arborifier mais aussi gas fi ay teen teen yi fi jot a def donc c'est juste vraiment si analise technique pour démarrer la woon mais niveau d'exploitation bi mu toll léegi. ah forage lañ ci soxla agent de développement la fii lii fi yeewu si nit di liggéey macha allah bari nan am na koo xam ni mënuñu koo bañ a tudd ndax euh, jàppaleem dafa fës ci tool yi mooy soxna umu di soxna sëñ Mansour Alla Diablo su mu xel soxnaam xam nga ni fii ak Tiwaawan sori na waaye diiru mu sampee kër tool bi fii bés bu nekk ndékki lay jóge Tiwaawan di ñëw añ di ñëw reer di ñëw ci lañu commencé trancé jëmbat garab yi ma ñëw fii ànd ak suma bi nga xam ne moom lañu àndaloon ñu commencé jëmbat tool bi ba bii buur mu soog a balee fi ñu léegi lu fi nekk noonu moo di problème bi yëpp problème bi rek ku ne xam na nun xam nañu Serigne Mansour na liggéey lu fi nekk rek moo di problème yu am yépp mooy problème ndox ñàkk ndox ndax suufu am na ko ba doyal problème ndox lañ am ku ko mën a dimbale ci lu mu mën a doon ak ku mu mën a doon ku ko mën a dimbale ngir yàlla nga jàppale ñu ñu am ndox mango kent ay kayte ak palmeer moom lañ si jëmbat ci mango pale ci suuf liñ si jëmbat variété yi moo di limon orange yi orange yi nawel am na ci orange yi amulem am na ci orange yi walancia am na ci orange yi payene ak am na ci mandarine commune am na ci mandarine tàngoora am na ci loolu lañ ci def ci variété mais boo gisee résidus bi jëm na bépp commencé ñor mais fu mu nekk nii boo gisee résidus yu ñàkk ndox luñ ci def rek mu dee. mais def def na fi aussi euh, di maraîchage comme spéculation def nañ fi chou pommé macha allah si xur wi lu takk si superficie bu yaatu def nañu fi tamit soble même tool bi fi nu toll nii am na partie boo xamoon defoon nañ fi pomme de terre. di ko irriguer ak en aspersion euh, def na poivron def nañ tamit carotte yu spéculation yëpp def na ko pour dire que ne euh, c'est pas par manque de d'ambition ou de volonté yooyu yëpp liggéey na mais toujours mu ngi limité wu rek si facteur bi ñu waxoon facteur dominant bi muy ndox mi. lépp lu ñu yëkkati jàppale door suñu sag door suñu lépp it féetewul fépp doy lépp it yàlla daal def. jumaa ji nga xamante ne ñu ngi koy sos keroog ban tëdd sama kër laa nekk maag Mamadou mii ba xaaju guddi xale ba ñëw fa wóosi Mansour boo ñëw wóosi foofu ci kër gi mu ne man kat si sëriñ bi moo leen yónnee na nga ñëw wuyu ko ma ne waaw la ñëwee sëriñ bi mu ne man maa leen wóolu woon dafa am lu ma niisaaroon waaye yàlla ci mbaaxam yàlla dimbal na ma ci ñu ne ko mu ne Cheikh Tidiane sama rakk ji nekk fara abi dari moo ma ñetti juma benn bi nag fii laa ko bëgg def sëriñ bi nag di sunu lépp nag suñu lépp la xew-xew bu ne xew na lépp lu ko war mu def ko waaye lépp benn la ndax Alaaji Ceerno Daraame sama maam Alaaji moo ko jàngal loolu moo tax sëñ Mansour mii fooye wuñu ñu kontaan ci moom ndax mm, baayam maamam moo sunu kër gii ndax gis nañ sa taxawaay fii trop ndax biñ fi ñëwee ba tey si yaa ñu jàppale ba ñu am juma te lépp séntu wuñ ko woon nga jàppale ñu fii gis nañu sa taxawaay bi ñu taxaw fii aussi bu ñu demee gàmm giit it gis nañu ni nga taxawee foofu ak ni nga ñu bëgg ak ni ñu fonke bëgg ko ñëpp ak njaboot yi kontaan nañu trop macha allah. waaw ndax gis nañu ni ñu taxawoo te di bëgg nañu it ku ñu jàppale. ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si bi réew da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen vidéo ne dugal nañ ko mën a xam li xam